dette euh, fiscalité. tey am na ci ñoo xamante ni euh, coowal presse bi dégg nga ci ñu bëri ñu ne dañu war a fay impôt dañu war a fay impôt alors tey bu ñu tolloo fii au vingt et unième siècle. deux Sénégal am na ci ñoo xamante ni depuis deux mille quinze euh, ñu ne fay ñu impôt. wala boog bu dee ñu ngi ko doon fay fay ñu ko woon normalement. ñenn ci ñoom génn ni est-ce que ñi nekkoon impo des domaines aussi defoon nañu seen liggéey. ba nit ñi mun a fay impôt normalement. mu mhm. nekk nuance foofu. nuance amu ci c' juste des gens qui yu travaillent sur le dos du contribuable yu xamul lan mooy être patron c'est ce qu'ils savent faire c' est être corrompu et jouer le le rôle de de de bras armé nekkal fi état abandonner l'éthique et la déontologie bi waroon am ci seen liggéey euh, jouer le le sale jeu abandonner le peuple le peuple bi fay contribuable ñoom ñëpp ils ont des subvention te ci ñàkk peuple bi lañ koy amee mais ils se sont rangés du côté des oppresseurs ñu leen di subventionné ñu couvrir leen ñu bañ a fay seen ay impôts ce sont des mauvais mauvais citoyens amuñu aucune leçon à donner et le pire mooy ils ont joué le mauvais rôle ils ont essayé de manipuler le, les sénégalais fenal nañ fi ay gor tëjlu nañ fi ay gor aggravé nañ fi ay kaawu jàmbur ku mel ne imam Ndaw fenal nañ ko ba nga xamante si ni pratiquement bokk nañ ci ñi ko rey comprendre nga euh, dem nañ bi nga xam ni askan bi bu bëggee informé wu léegi ñi day dem faneen ci internet bi seeti yeneen euh, émission yu mu wóolu wala mu seeti yeneen liveur yu mu wóolu mais dem nañ ba laaj ñun ànd suñu ay média te mbir yu fi doon am yëpp ñu dañoon gis que ni dañuy xëy suba nit ñi déformé les médias déformé wala ñu defal kenn propagande wala ñu defal euh, euh, ñu defal kenn benn diabolisation loolu lañ fi nekkee ci 12 ans yi ñu weesu di 12 ans yi ñu weesu daawuñu fay daawuñu fay mooy le sale jeu boobu ñu doon joué moo leen taxool ñoom ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi leen ñu bañ a fay aujourd'hui bu leen beneen régime bu ñëwee affaire bi brusque bett leen ah mais eh, ku nekk li nga ji mooy sax quoi ñoom loolu lañ ji woon mais nañ am ngor fay parce que Sénégal yëpp ñu ngi fay boo bàyyee médias yi ñu bañ a fay mais ñeneen ñi bu leen neexee ñoom aussi ñu ne dun fay et puis chantage bi ñu bëgg a def loolu du dox. ah nga jàpp ni dañu dañuy chantage bah oui dañuy chantage et ñoom ils sont pour saboter nguur gi ba mu ñëwee ba léegi ça fait deux mois ñuy gis ñuy ñuy ñuy yëpp mooy ces patrons de média loolu xam naa ni c'était pour mettre la pression pour que nguur gi aussi ba teggi tànkam par rapport ak yenn yi mais ce qu'ils savent pas mooy les sénégalais yeewu nañ dootuñu nangu dootuñu nangu kenn kenn kenn mu mën a ñëw am loolu ci ñi nga xam ne dañoo xeex rey joxe suñuy bakkan tëdd ci ay kaso ñàkk ci ay milliards suñu réew pour teg leen ci nguur gi du ñu nangu benn média mercenaire mu ñëw ne daf leen di jël en otage wala daf leen teg une certaine pression pour que au retour comme nañ doon def loolu wonni na ña fi nekkoon dañoo jubali moo tax pour nga teg leen pression nga nga nga nga nga un nga nga nga nga chantage leen dafa doon yomb mais ñii dafa am fu ñu jaar l'histoire est très différente dafa am fu ñu jaar dafa am benn sacrifice boo xam ni peuple bi moo ko def porter leen fi donc ñoom seen ay garant seen bouclier mooy peuple bi personne mënu leen jël en otage léegi nag la woon woon ni na da ngeen fi nekkoon du ngeen fa ay ay ay ay ay en plus de ça defu leen seen liggéey li gën a réeral askan bi lu gën a yàq doxoon les oppresseurs doole moo doon lay médias suñ ne les médias y toujours des médias yu jub y aura toujours des des yoo xam ne ils ont été euh, amoon nañ éthique ñu ngi doon def seen liggéey donc suñ nee les on sait de quoi on parle on on sait de qui on parle il y a des gens ils ont été des menteurs des manipulateurs ils ont tenu des propos yoo xam ne taal na ab réew ils ont diabolisé des des innocents et ils ont ils se sont aussi di xalamal ay reykatu nit ay détourneurs de milliards des gens qui ont été épinglés par ay par ay euh, Euh, ay rapport ug IGE wala OFNAC ñoom ñoo doon taxaw di leen xalamal ak di leen jaay képp koo xamante si ni mës nga taxaw pour xeex sa régime la sa même média mooy taxaw diaboliser la sa même média mooy taxaw fenal la manipuler le peuple def de la désinformation donc média boobu noonu nañu dem fay seeni impôt point barre réew noonu lay doxee dañuy fayee impôt ils ont eu des subventions ñu ngi doon gagné ay marché ils se sont goinfrés ils se sont remplis les poche poches maintenant il faut payer les impôts et arrêter de pleurnicher wala de dire que ni non on va fermer les boîtes ils, ils n'ont qu'à fermer de toute façon maintenant. Ah, affaire bi dafa xam nga aussi nag bu ñu fermer aussi da calculer ni am na ñu nar a dem chômage. mais la vie noonu lay fonctionner war na ñu mun a mettre benn plan d'action boo xam ne peut-être non seulement mun nañ fay peut-être mode moratoire tout temps ñu bàyyi ñuy liggéey continuer seen liggéey. bon écoute loolu ñoom ils verront ça leen di koy topp mais le plus important daal mooy nañ fay. nañ fay et puis ñu xoolaat seen toogaay. Mhm. ñu bàyyi le sale bu ñuy def nguur bi doog a toog deux mois du ñu nangu benn média mercenaire buy ñëw di ko yàq. Mhm. ay pas yoo xamante si nii kenn xamul dañ leen yónni kenn xamul ña ñoo nekk seen ginnaaw des voleurs de milliards ñu nekk si ginnaaw ay médias pour manipuler leen yooyu sénégalais yi duñ ko nangu parce que on a fait trop de sacrifices pour en arriver là. Mhm. du ñu nangu benn média mu ñëw ne dafay teg fitna dafay jaxase dafay saboter nguur buy toog a toog deux mois. nga taxaw ci diggu boppam lu ne nga wax ko yëfi naa fekk la parce que ils ont été la douze mois douze ans ne miig noppi noppi ci sàcc gi noppi ci rey gi noppi ci booy dee ci géej gi noppi ci recrutement alkaati yi nga xamante si ni kenn xamul lan ak lan moo nekk si biir noppi ci arme yi ñuy jënd noppi ci doomu Sénégal yi ñuy fitnaal loolu lépp ñu noppi si ba noppi bokkoon ci propagande boobu noonu mhm. donc bu nee ñoom même média boobu ñu ñëw jël seen ay chroniqueurs ay xawma fu ñu jugee ñuy toog di wax d'une grand n'importe quoi di saboter réew bu leen nangu ñu saboter leen surtout bu fekkee da ngeen jógee ci benn révolution boo xam ne vous avez payé le prix fort mhm. ñun askan bi ñoo war a am suñ fullay bopp ba du def bouclier parce que lii dañ koo xeex ba teg ko donc dañ ko war a protéger def bouclier la ne veut pas dire que ñi ñu fal lu ñu def noonu la mhm. mais temps bu ñu soxla ñoom pour teg leur base ñun ñoo war a nekk bouclier mhm. donc moi je demande peuple bi fulla gi ñu amoon ba dakkal biñ leen di manipuler ñu ñu ñu bañ leen wuyu. Mhm. biñ leen di nax ñi bañ leen wuyu ñu leen di jox mauvaise information ñu bañ leen fulla googu ñu amoon. Mhm. ba topp seen réseau topp seen ay téléphone topp seen ay yenn chroniqueurs yu jub yi topp seen yenn liveurs yu jub yi fulla googu ñu amoon ba jël ay nit du les gens du peuple. yóbbu leen au pouvoir ñu am fulla wu tànkam lu aussi c'est même mer ngembu yooyu nga xamante si d'autres politiciens ñoo nekk seen ginnaaw pour saboter la révolution qu'on a menée et qu'on le régime qu'on a en euh, en place mhm. donc ñu protéger leen tànqam lu yàqkat yi nañ dem fay seen i impôt point barre ok alors dégg nañu ci honorable député Abdou Mbow moom nee na euh, nguur gi def na fi deux mois ferme mhm. te moom jàpp na ne ni mu gis mu koy doxee convaincre Mm-hmm. te ñoom ñoo fi waxoon buñ fi toogee deux mois. dinañ mm-hmm. def le tout ba wàññi dund gi yooyu. Mm-hmm. mu mel ni pression bi mi ngi gën a yokku ci côté gouvernement bu bees. non bon Abdou Mbow rôle lay def en tant que. opposant man loolu du ma déranger nga wax wax ju mel noonu parce que loolu aussi Sénégalais yi comme ni ma ko waxee ñàkkuñu fayda. mënuñu laa jox douze douze ans nga yàqate di sàcc yéen ay sàcckat ngeen ay defarkatu faux billets ngeen ay reykatu nit ngeen. non Sénégalais yi dafa leer seen mbir ay booy yu ndaw ngeen rey plus de quatre-vingts personnes. Mhm. dem di jënd ay armes jamono bi nga xam lu ñu lekk la ñuy wër ak lu ñuy kërëb kërëb parce que am na collectif bi def nañu porté nañu plainte. waaw contre mu am ay vidéo yu wane. rey gi ngeen doon rey Sénégalais ngeen ànd ak ay Samba ay bandi yu kenn identifié wul ñu ànd ak yéen ngeen jël ay pick-up jël ay lu ne ngeen jël ko di fitnaal Sénégalais yi dund gën a cher. location gën a cher njàng mi yàqu sécurité amul si dëkk bi ay milliers de sénégalais dee gi bu fekkee yow yaa mën a amaat le cran de toog si kanamu caméra di wax ces gens là man je ne les comprends pas xaw ma yan façon di leen bu doon mat la dinaa def profil bas pendant un long moment pour may Sénégalais ñu cicatriser un peu. Mhm. pour may Sénégalais yi un peu ñu souffler parce que fi ñu jógee dafa métti te yéen yéen ñu ko teg su ngeen amaatee cran dem toogaat ci télé yi ne yéen da ngeen di critiquer man je me dis ni ces gens là y a chose qui fonctionne pas ci seen ay biir bopp. Mhm. donte c'est des opposants ils sont mais su ma doon ñoom je je dinaa jéem a réaliste cest à que ni nguur buy doog a ñëw et puis suñu xoolee scandale yi am yëpp on sait que ñii ñi danoo vidé réew mi danoo sàcc réew mi danoo vidé kees nag yeeg yooyu nu dara bett ma mais dama ci gën a am xol bu dagg parce que xamoon naa ne ay sàcc lañ tey ji boo xoolee li xew maanaam ñoom képp ku leen mës a jàppale da nga am ngor tey da ngaa war am kersa à ah, moins nga ñëg mais bu fekkee sénégalais te xam nga kon man ñii ma doon jàppale lii lañ ma doon def jamono bi nga xamee que ne ñun lekkuñu naanuñu ñu ngi jooy dund bi dafa cher kon ñii nii lañ doon def suñu terrain dëkk nii lañ doon def surfacturation li nga xam ne après ñun ñoo koy fayaat parce que dund bi la ñuy yokkaat wala ñuy yokkaat pour mën koo récupérer waat wala bor yi ñoom bu ñu defee surfacturation ñun baadoole yi leen doon jàppale kon ñii leen ñun li lañ doon dund pendant ce temps tu te remplis tu te remplis 41 milliards 22 milliards 7 milliards 3 milliards 100 su ñu demee tey ba am les informations ci ñu doon pàccoo réew mi waxuma ñi leen doon xeex de mais képp ku leen mosoon faral da ngaa war a am kersa dalay wan que ne ñii amuñu daray patriote ci ñoom amuñu daray ngor ci ñoom ay baadoola la ñu bëgguñu seen réew parce que bu fekkoon réew mi sax daa nekk di dox nekk réew moo xam nit ñaa ngi faju nit ñaa ngi lekk nit ñaa ngi naan nit ñaa ngi liggéey étudiants yi ñu ngi lii bu ñu demee ba nga xam si ni c'est le contraire étudiants ku ci nekk borom diplôme yaa ngi wuti cag-cag boo dawal yaa ngi jaar ci géej gi di dee mhm. paj mi jalis bi amu ci fenn foo xamante si nii Sénégal bi nekk na fa à l'aise pendant sa temps ñi nga doon dégg ñoo la may nañ mbër bi nangam may nañ waykat bi nangam jënd nañ kër nangam nangam ñooñu xaalisu baadoo la boobu doon bëgg a dee moom lañ doon dundee kon tey ban bët nga leen war a war a xooleel bu weesoo jéppi leen bu weesoo bañ leen bu weesoo bëgg Sénégal aussi mu jaarale mbiri ci yoon ku ne ci ñoom ñu rëq sa ndigg vidde say compte nangu say bien xool say prête non parce que ñu koo ci jàpp benn xamal ni li mu nëbbu ëpp na loolu ay prête noo la ñuy def seen ay jarbaat seen ay xaritu jabar parce que xam nañ seen ay jabar day direct donc ñu ngi ñaan. Mhm. les enquêteurs ñu nangu ñii liñ ñu sàcc nañ leen topp jusqu'au moindre centime nañu nangu lépp donc bët bu bët bu ma leen di xoolee mooy jéppi ak xeebeel ak dégoûté man su ma leen di xool damay dégoûté su ma maanaam chaque fois benn rapport génn ma dégg ne diw lii la dóor lii la surfacturé terrain bii la sàcc nangam sangam. sama mer ci ñoom day yokk pendant ce temps ñun ñu tëddoon ci kaso bi suñuy liggéey yàqu sénégalais bi ñuy rey toog ci média yi ay bandi lañu